solul kaala googu. ndeysaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo dee xool waa Màkka ci ñuy sukkandiku naan waa Màkka daaw ko def waa Màkka kenn kaalawu kenn doo fi gis ñu ci man mosuma gis waa Màkka ku ci woo nan ni moom la yonent bi daan kaalawoo. ndeysaan sallallahu alayhi wasallam. maanaam ñu bañ a jàpp ni Màkka suñu diine nekkul Màkka. Mm-hmm. yonent bi dañ ko yónni woon Màkka. ndeysaan kaala ga nekk Màkka. Mm-hmm. yonent ba tëdd Madina. mais mm-hmm. ñun roy royloo wuñ ñu waa Màkka royloo wuñ ñu waa Madina dañ ñoo royloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu ne am jigéen ñi ca mooy Arabie Saoudite duñ ko def xanaa xamuñu ni jigéen ñi ca Arabie Saoudite duñ woddu. ndeysaan. naa mooy góor naa mooy xëy sol ba xëy liggéey woddu xëy dem liggéey. sen bu tëdd jotee góoru naar mooy woddu tëdd. góoru naar mooy woddu tëdd. mooy woddu tëdd guddi. ndeysaan bu xëy suba jotee góoru naar mooy xëy woddu xëy liggéey te xoolal ñun Sénégal jigéen ñi xëy woddu. wallaay wallaay ndeysaan. donc mbir mi nekkul ci Arabie Saoudite non lan bàyyi Arabie Saoudite fële ma di wax ci am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la doon waxee ndax borom xam-xam yi ban borom xam-xam bu waxee dara boo ko bëggee kii da nga da koy woo téléphone ndax téléphone léegi yomb na boo ko woowee na ko oustaz léegi sa waxtaan bi nga def keroog rafetlu naa ko trop wax dëgg yàlla neex na jaar na yoon waaye dama ci amoon gis-gis boo xam ni xam naa ni bu nogay toggoon ceebu yàpp suba fa laay añati bu ko defee ñu xoolal bi ni muy neexal ci Oustaz Alioune Sall bu boobaa. ndeysaan. ñu ci def a jaar xadis yi ñuy wax ay xadis man naa juróom benn xadis yoo xam ne te xadis boo ko doon dindi xadis dafa am lu ñuy wax aw yoon. Mhm. maanaam dañ naan Ndiaye Lo dégg na ci Ablaye Mbaye Peex Ablaye Mbaye Peex ni dégg naa ci Ablaye Naar Samb Ablaye Naar Samb mi dégg naa ci diw. léegi nag boo koy dindi da nga naan ñu ci dugal kooka bokkul ci ñi nga xam ne seen i wax wér na moo tax xadis bi wérul. ndeysaan te ba tey oustaz bi doon wax tuddul dara ci xadis boobu ni silsila bi maanaam yoon bi mu jaar am na ku ci nekk ku wérul noonu la ñuy dindee addis bu wérul mais doo toog rek ne addis bu wérul déedéet addis bu wérul buñ koy dind da naan diw ma ca addis ba xëy na njaay loo mën ca tudd kooka kenn wër ta sukkandiku ci addis bu mbokk ma tax addis bu wérul waaye doo taxaw rek ne bu de ndeysaan déedéet ko defee ñu moytu ustaas di di jamante ci yooyu que loolu dal na Arabie Saoudite ba ñu ci bari ci ñoom duñu laalante ñun loolu xajul ci ñun ndeysaan ndeysaan ndeysaan ko defee pour mu gën a rafet rek ngeen lu baax ngeen ci jublu. lu rafet ngeen ci jublu yéen jublu leen ci dara lu bool wala jéem a yàqal dara. déedéet déedéet déedéet Wade ñun ñëpp nañ àndandoo rek xam ne ñoo bokk yëf yi. ndeysaan ndeysaan jërëjëf Wade. loo xam ne dagan na nag bun na laa dagan na. Hmm. mooy bu la neexee defal bu la neexee bàyyi. ndeysaan ndeysaan Wade. xam nga yonent bi nit ne noonu lay kaalawoo man li ma jot a gis ci imaam euh, taxaw wax dëgg yàlla kaalaam googu bokk duru la ni ni nga ko waxee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ndeysaan te gisuma ko Aliou Sall def ko. waaye nag dañ ne la dagan na jaatu na bu la neexee def ko. waaye bu fekkee ne yow xëy na xool nga sa jëmm ñi kaala bépp bu ma ko defee jékku ci man mbaxanaa gën a jékk ci man nga mbaxanaw. ndeysaan. kenn bii ngeen di wax it la mel. ndeysaan ca. te it ñi koy def du jigéen ñëpp a yem. dafa am ñoo xam ne bu ñu xoolee seenu mbind nga xam ne da leen di jural musiba ñu laal ca dara loo xam ne moo leen di wàññil loolee mu leen di jural. dëgg la ñoo xam ne nanu dindoo bu fekkee ne jëru ko loola bu ñu leen ko def. dëgg la. lii lii lii rek la day mel ne toog am na ñoo xam ne xam na ni garabu bu jékku ci ñoom. ndeysaan. bu garabu bu jékku ci ñoom ñu sol la jékku ci ñoom moo xam wala wala wala. dëgg la dëgg la dëgg la wàdd dëgg la wàdd. mais bu ñu nan pour ñu moytu bu baax naan Arabie Saoudite jigéen ñi duñ ko def te ëpp yi nekk Arabie Saoudite ak dëkk Arabie Saoudite ak xam waa Arabie Saoudite bokkul. Mm-hmm. man ngaa ne Arabie Saoudite xamoo leen. dëgg la. waaw ndax jigéen naa am na demee noo xam ne bu leen xamul mën a sax lu ñuy def bu ñu def. dëgg la. waaye misaal bi ma leen ci jox rek mooy ñun Sénégal jigéen ay xëy waddu waaye ci Arabie Saoudite ak bër yi gol golf bii góor ay xëy waddu dem liggéeyi. ca jigéenu Arabie Saoudite xamul fër. ca ah, waaw léegi kon ñun suñu jigéen ñi xëy di waddu nag kon dañ naan baaxul kon diine ji nekkul Arabie Saoudite diine jaa ngi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jël ko ci ñoom. ñu topp loolee. loolu lañ bëgg muy lu wér muy aaya alxuraan ak hadis yu wér mais bu ñu jëlloo ci Arabie Saoudite. jërëjëf sëñ Fata waaw ñu ngi leen di wadd wadd yàlla yal yàlla fayal ñu leen ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Alaaji waaw li ñu leen li ma la waxoon rek coow li commencé na de <laughs> moom kay xam nga dafa ci am ay tem yoo xamante ne ji moo ñu dal nañu fi nag mm. yu bëri bëri am na ay thèmes yoo xamante ne soo ko fàttalikoo ci wareef bari na bari ah mooy mooy la la ñu daloon ci ci njëgteef ak ni ci guddeeg daaga ba yoo xamante ne da ngay pare rek tëj mm. waaw waay waaye ne daaneel naa ak trouvé naa ci solution amul moom. waaw xam nga tax solution du mu gaaw du am. Mm. li El Hadj Bakar jaañ wax démb mooy dëgg. Mm. jamono a jekk. Mm. ku nekk sa cosaan. dëgg la ku nekk la nga gëm. dëgg la xam nga diggante bi ñëpp bokkoon gëm la. six mois du am. dëgg la. am na ñoo xam boo demee seen kër lañu gëm ak seen loi. nit mu leen ko tax a baax. te kër yi bari te wóote. dëgg la. mooy jigéen ñi yëpp marché. Mm. onze heures lañ fay dee ak seenum dugg. Mm. waaye su midi jotee plate yi wuute. dëgg la laajte. jëlee ko ci ligne bi. waaw <laughs> waaw jëlee ko ci di yëngal sa fan club jëlee ko ci ligne bi rek. sëñ bi na ngeen def. sant yàlla bu baax. ñu ngi leen di ziar. ñu ngi dellu ziar. ñoo ngi ziar soxna Degen. sëñ bi ziar nañu la bu wér. Mm, yow moom sunu wayjur ñoom lu simple daf la jàpp. ndeysaan ndeysaan jërëjëf. noonu la ko solo nu rafet la macha allah. alhamdulilah rabbil alamin vraiment du am habitude bi participer ci yi ci bari damay faral di déglu rek di suivre. mais thème bi dafa tëddee noo xam ni. jël ko jël ko hmm. euh, sam papa papa Ndiaye Lo. thème bi dafa tëddee noo xam ni vraiment ñàkk cee wax. Hmm. te bokk ci réew mi sax lu doy waar la. Hmm. parce que ki nga xam ne dafa yor ay problème am tëdd. yow nga taal sa climatiseur di nelaw moom mu fanaan ci ay difficultés set ak guddi ni mu guddee. surtout nga war ko séq koo xam ne du at du ñaari at du fukki at maanaam ba foofu la war a doon. Uhuh. kooku ku ko xeebal problème am doo nit. Hmm. émission bi apparemment li ko tax a jóg mooy ñi nga xam ne dañ leen ko def ba pare ñu am ci ay problème hmm. su demee ba nga xam ne ñi ñiñ ko def ñu am ci problème ñoo ëpp ñu ñiñ ko def te amuñu ci problème foofu la coono bi nekk. Hmm. ndax am na maa ngi dégg ku ko jéem a comparé ak góor ñi. mais comparaison n'est pas raison. Ce n'est même pas possible de faire la comparaison. Hmm. parce que góor ñi la plupart du temps téeméer yu ñu ko def téeméer yëpp ñu nañu amuñu ci benn problème. Hmm. mais soo jëlee téeméeri jigéen yu ñu ko def juróom-ñeent fukk juróom yëpp am am nañ ci problème ñi ci hmm. amul problème juróom la ñuy doon. à peu près. mbir nag su dee da nga koy def pour séenu ci loo xam ne luy defar la te li muy yàq moo ëpp li muy defar. kooku vraiment maa ngi ñaan ñi nga xam ne dañ ciy intervenir quelle que soit la situation man du ma islamologue mhm. mais nag damay xool di saytu di xam mbir yi di muy doxee di xool affaire société di teg samay calcul personnel di teg xam naa ni tey damay joxe benn exemple rek boo xam ne moo gën a gaaw mën mhm. mi voyage tukki est dafa araam ci ak ci ci ci ci diine mhm. tukki araamul waaw mbën na mi lu tax ñu xëy tere ko pourtant am na ñu tukki ci gaal yi dem àgg Espagne àgg yeneen dëkk di fa dox seen soxla mais bu demee ba nga xam ne li muy rey ci yoon ñu moo ëpp liy tàgg boobu amatul importance. Hmm. il faut que yéen ñu comprendre. ñu comprendre thème bi li nga xam ne moom moo ko tax. déglu na thème bi de. déglu ci am ay coono dafa bari. yonent yàlla Muhammad alayhi salaam. sallallahu alayhi wa sallam kooku du sàkku dara loo xam ne waxuma ci jullit yi de ci jaam yi laa wax ci nit du sàkku dara loo xam ne ci mbindeef yi bu noonu koy def seen coono mooy ëpp seeni jàmm hmm. ndax lii problème la yoo xam ne c'est un problème qui très sérieux hmm. ndax problème problème tabou boobu ba léegi dañuy wax ni mu ngi fii jóge ndànk-ndànk avec les médias avec euh, euh, les nouvelles euh, la nouvelle technologie et mais au fur et à mesure du doon loo xam ne dañuy xëy sent ko rek mu deñ dafay deñ ndànk par ndànk comme tey ni ngeen osé wax ci ëllëg keneen dina osé wax ci keneen ak keneen osé wax ci mm-hmm. noonu lay dañee ndànk par ndànk mm-hmm. ñi nga xam ne dañu am problème ci situation bi ngeen di wax nëbb ko wala am kersa taxaw di wax ñi ci ëpp sax suñuy intervenir da toog foog nga dégg ñu jooy te ñoom ñoo ñu jur on leur doit du respect. Mm-hmm. Sénégal tant que ñun mënuñu jóg respecté jigéen ñi xool seen coono ñu suturaal leen. Mm. pour ñu avancer dina jafe quel que soit les changements que nous allons apporter dans ce pays. c'est ça la réalité. il faut ñu mettre waxante dëgg. Mm-hmm. jigéen dañ ko war a ormal mhm. ñoom ñooy sunu ay waajur d'ailleurs toog sax di waxtaane seen i mbiri cër sax doonul loo xam ne si dafa waroon doon loo xam ne si révolu à ce stade fi ñu mhm. toll nii waroon na doon sax lu jeex mhm. waratuñu tollati sax ci stade yoo xam dañuy toogati di wax ni jigéen ji nii lañ ko def nii lañ ko def naa lañ ko def te loo xam ne da koy uññi donc il faut qu'on comprenne dama ni mbir daal soo jógee pour di ci jublu lu baax lu baax muy yàq moo ëpp li muy defar kooku amatul benn njariñ goo mu ne alayhi salaam yonent yàlla Muhammad dina sàkku pour ñuy def loo xam ne si ñi ciy loru dañuy bari bari gi nga xamante ñooy ëpp fukki hmm? yoonu juróom-ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy am ñoo ciy génn mucc ci donc vraiment mu voudrais qu'on comprenne la situation hmm. tey su doon góor ji ci situation boobu la ñu nekk kon dégg naa yaakaar naa kenn du dégg ci télé bi kenn du am jàmm tey. waaw mhm. ah, bu doon situation bi jigéen ñi dund ba ñu mettre ba ñu ba ñu mettre ko en exergue devant devant la télévision pour trouver des solution mhm. góor ñu ñoo nekk ci même situation boobu kon kon jàmm du am. kenn doonul dégg. jërëjëf. bu doon fukki góor yu ñu xarafal juróom-ñeent yëpp am problème téeméer yu ñu xarafal quatre-vingt-dix pour cent yëpp am même problème yi am ay jëlee ci ay ay problème dootuñu yëgati bànneex wala ñu jële ci ay feebar yoo xam ne kon est-ce que kon kon nga yaakaar ne kon di ngeen am jàmm kon kay yaakaar naa ne télévision yëpp ci yoon loolu la ñuy wax hmm. pourquoi jigéen ñi am situation bu demee noonu te kenn du war a taxaw wax ci hmm. non mais vraiment il faut voir la situation ci hmm. bu nga xamante ni nit bopp bu la méttee ba bët seet xam fi nga ne koo xam ne bu waree def farataam ak borom këram day nekk ci difficulté di nekk ci métit ba bët set kooku boo buggee minimiser thème bu demee nii nga xam ne yow da ngay wax waxaaleel ko parce que li ngeen di wax yëpp ñooñu ñoo ko moom. Mm-hmm. li ñuy wax li ngeen di wax ni émission bi normalement koo xam ne yow sa situation affaire bi impacté wul ci yow maanaam def nañ la ko nga mujj. li bi. jóg mooy ñi nga xam ne dañ ci am ay problèmes sérieux yoo xam ne xamuñu fuñ koy waxee ñuy ñuy génn àdduna ba keroog ñuy sangoo suuf te loolu lu métti la. imagine toi ku am 16 ans 20 ans nga may ko borom kër moo am difficulté bi bugg ci dund ba ba muy am 90 ans 90 na ba keroog yàlla di ko moom. Mhm. moo tax vraiment il faudrait que ñu seet nu ñuy di solution xam ni affaire bu doo geeru ay entre ay euh, comment dirais-je du ma bugg sax dugg ci détail yooyu entre ay euh, ay ay ay ay ay ay kii naan nii laa ko gisee kii naan dañuy xool yonent yàlla Muhammad alayhi salaam li ko taxoon a jóg moom mooy mucc muccal jaami yàlla yi waxuma jullit de hmm. kullu kuy bindeef rek moom jàmmam yàlla da ko def ci loxo yonent yàlla moom daf ko awa est-ce que moom su doon gis na situation bu taxawoon tey gis situation bi ak lu muy yàq di dina continuer naan def leen ko def leen non ne mooy loo xam ne si boo mu munee nga def boo munul nga bàyyi sunna doo ko bàyyi bàkkaar topp la dafa rafet parce que yonte yàlla moom daan na ko jëf par exemple mais am na li yonte bi li mu daan jëf yëpp ci su est-ce que mën nañ ko li ci gën a tuuti rek daraam socc ta saa su ne soo ko julli est yow mun nga respecté saa su ne bala ngay julli soccu wala booy jàpp soccu non il faut voir les choses d'une manière positive. jërëjëf. du problème mu yàq. mais tey kenn ku ne yaa ngi yor sa feebar boo xam ne bu ñu ko gaaroon ci mbedd mi nga am coono. jërëjëf. feebar yi nga xam ne nag mun nga waaxu directement yóbbu ko ci docteur exposé ko ñeme ko wala nga yóbbu ko ci devant le public exposé ko ñeme ko bokkul ak affaire bi nga xam ne c'est plutôt interne ñi ciy am problème te ñu wax kenn xamul lu ñuy toll. jërëjëf. donc il ne faudrait pas que yow nga def ko mucc ci rek muy loo xam ni si presque exception la à la règle nga bugg a jàpp ni kon ñi ko def yëpp war nañ mucc il faut ñu seet bi bu dee li muy yàq moo ëpp li muy defar vraiment di ko continuer di ko def kooku vraiment gëw ma ni lu rafet la gëw ma ni loolu tamit dina normal jigéen ñi gëw ma ni tamit loolu dina leen dimbali. ndeysaan. waaw jërëjëf daal vraiment laa amoon lu kontaan nañu torop torop torop ci sa intervention. sama yaay waaw alaaji fa tabaarakàlla macha allah kii mm-hmm. daal xaw ma kan la doom ju neex waaw dafa dégg da li may wax toujours nii nañ ñu digloo xel. da koo déglu. ku mucc. waaye wax taxu laa jóg. yow mucc nga ba pare. waaye ki muccagul. ah taxul fu muy muccee. kooka wax ja. jërëjëf. bala nga ko werante mm. ñi jóg nii damay feeti malaat hôpital. Mm. ñi weer dañ leen di weesu ñooñu tax leen a jóg jërëjëf allah waaye ñi nekk rentré biir hôpital yi leen tax a jóg jërëjëf ñooñu bu ñu wéroon hôpital dootu am gàtt jërëjëf allah ji xam nga démb juróom benn fukki at mu ne ma euh, léegi léegi léegi nee na ma mu ne ma man bi nga xam ne def nañ ma ko am naa chance xëy na nañ ma ko defee sell na ba aw ma ci problème ak sama borom kër soxna say wax de mu ne ma waaye bi ma juree sama taaw mu ne ma sama yaay mere na ma ñetti fat ndax dama jur sama taaw muy jigéen rek mu ne ma nañ ko dugal ma ne ko mukk ci kaw àddina kenn du ko def mu ne ma def nañ ma ko aw ma ci problème ak sama borom kër maa ngi ciy sëy normal mu ne ma xam naa ne ne nañ ko war a defee lañ ko defee mu ne ma waaye nangu ma sama benn doom ñu def ko mu ne ma sama yaay suñu aada la suñu cosaan la mu ne waaye ñetti fan toog na ko tudd ma ndax dama ko ni mukk doo ko def sama doom benn kii nga xamante ne sànq nee na wujjam tas rawale doomam Mauritanie moo ko gënal ñu def ko doomam alaaji nañu dégloo nit ñi xel de nañu dégloo nit ñi xel parce que ñi ko dund ñooy wax te tamit dafa am ay thèmes yoo xamante ne dinañu topp at naan yëkkati leen thème bi ndax sonn nañu waaye ngal la ki nga xam ne moom moo tudd ci néegu sëyam dund di jooy ndax jigéen soo demee ba nga xam ne wareef la sa jëkkër fu tegee loxo nga war ko uyu nga dem ba nga xam ne fanaanoo paaka moo la ko gënal wala di euh, euh, simile naan da nga feebar indi ay rab lu ne nga indi ko ndax bañ seq sa borom kër ndax métit gi nga xam ne moom ngay dal waxatuma nag doom ba alaaji moo tax affaire bi li ñu wax daal ne bu kenn xeeb góom bi bu kenn xeeb feebar bi bu kenn xeeb góom bi. ku mu dalul waaw ku mu dalul. ñaanal yàlla ci mu dal macha allah kenn bañ see jaar ba am loola. ah waaye ñu ko dund yëpp bëgguñu yëpp seen doom de ah wér naa hmm. docteur yëpp bëgguñu yëpp. Hmm. docteur dina faj malade mu faatu. jërëjëf. faj malade mu wér. jërëjëf alaaji. waaye ka wér nag bu mu xas nag ka feebar. jëf ak ka dem. déedéet jëf te li mag njëkk ñi daan def. bu dee seen aada. Hmm. ko la xale tey yi koy yëpp kon. dëgg la. ku ci amul problème rek dajewu ak jamonoy tey. waaw kay. ñuy wax ñëpp ne amuñu ci problème. yow mm. dajewuñu tey. waaw waaye ku ci dajeeg jamono tey buñ la ko defee nga am problème. waaw kay. ndax nañ ko daan defee ginnaaw ba nañ ko. Mm. ñu koy def mënuñu tey jéem. Mm. kuy jéem nag munoo da ngaa war a jàngee ba mokkal. ñooñu sax faatu nañu sët yi mujjee paaka bi kon na bokk. sët yi mujjee paaka bi ah, paaka cosaan boobu sët sët yi ak sëtaat mujjee. nañ dem tuuti def pose dellu si léegi léegi ci kàttanu yàlla dalal nag Alaaji suñu gan ndax xam nga <laughs> ki ñu dal ki ñu dalal tey ndaanaan la ah soxna Fanta Fifi Kanté waaw ndax ku engagé la ci problème bi nañ dem léegi dellu si ànd ak soxna Fanta Fifi Kanté mi nga xam ne référence la ci métier bi kenn dootu ko présenté ñu ànd ak moom ba tey ci li nga xam ne moo di excision des fii maanaam jigéen yi nga xam ne ñu ngi leen di dugal lal